salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu baax di leen di siyaare di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla yàggal ko te wéral ko ak mboolem rakkam yu mbokkal bu ndëkkat Sëriñ Tuubaa yëpp ak mboolem jullit yi ak mboolem taalib yëpp di ko ñaanal jëwriñu kër Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Abul Baraka ak mboolem jàppal Cheikh Mamadou Fadal gépp ak yëpp. di leeral ci Kazu Rajab xam ne ñu bari doon nañ ko laaj ma bëgg koo def ab audio rek mu gën a jàpp ni ci leeral ko ñëpp léegi ci gannaaw toog son àndoon na ak Cheikh Abul dem ñu dem ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa ak Cheikh Sëriñ Abibu bu Cheikh Mor Fadal ak Alxaaji Falilu Jóob ñu demee ci sëriñ bi sëriñ bi na ko sëriñ aboo ne ko ñun de dañoo ñëwoon doon fàttali bisub Cheikh moom lu faaral boobu muy màggalu Kazu Rajab te ñun fas ne yéene suñu lépp ci ndigal lañ koy ci ndigal lañuy wéy ci ndigal lañ koy tënk ndax fas yéene dara fas yéene doon dara lu dul ko fi nekkal sëriñ bi jox suñu lépp te bàyyi ko lépp sëriñ Mountakha ne ko jox naa la ndigal soo demee nañ ko defe woon daal rek nañ ko defee noonu ndax Kazu Rajab daaw moo woon yëf kon nag yi yi mi ngi wéy ba léegi joxe naa la ndigal na ma ko joxewoon daaw nañ ko wéy la noonu kon ñëpp xam na nañ màggaloon Kazu Rajab daaw noonu lañ koy màggal ren ñu ngi ñaan yàlla ci barke Seexul Xadiim barke Alaaji Fallu mii borom bis bi ñu yàgg koo fekk yàgg koo teewe te yàlla jële fi gàllankoor yi yëpp bañ delloo ko def ko nañ ko daan defee ci barke Seexul